الاسم الالهي ينولها الى مناهج الجهل والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الامام اليومي سيرو شيخ سيدي المختار بن شيخ الخليل ñu ngi jaarale suñu mu ñëw ci yow ci pour sëriñ xam sa bopp ak njabootu sëriñ soxna bi yëpp di jaare sëriñ bi di ko sant di yeesal suñu kuréel ci moom yeesaatul jaayee ak Seexu Xadim di ko teg ci sa loxo yow mi fi mag ci jotaay bi nga teg loolu ci loxo Seex Sidi Muxtaar bi nekk Sëriñ Tuubaa di sargal Sëriñ Xamsa bi bokkam yi ci teew yëpp ak teer yi ci teew yëpp ci turu Sëriñ Seex mi jëw nañu di Sëriñ Soxna bi ci moom ak njabootu Sëriñ Soxna bi yëpp faça ali tá a atividade aqui, porque você vem. Queria o técnico Mário Bia, mu mel ne li tax ma dëkkee seen seen xam sa taalibe yi ak bokk yi damaa xam ne bu ma xasee bu ci sëriñ bi moom dana xaw a doy waar te fii ay gàllankoor yu bëri waaye nag ci yoon nga bokk ki njëkk a daan wax julli ci yoonu mooy sëñ Ahmadou Demul Bay Bay Gam Bay ba ñoom ñu di loolu sax ci màgg ka jox si aadama gi moom ñëpp topp sëñ ñëpp topp sëriñ di wax ak ñoom ci xaq ba mu gis mu muxtaar mu nii sëñ bi daa ko mu ma ko jékki-jékki xaalis bi mu waxu daanu da ko mos mos mos a mën a la njëkkee. waaw yow naa ne ko kii kat dafa mel ne dafa am lu bëgg ko war a delloo ci boppam bala nga cee am jafe maa ngi xam lu sëriñ bi ne kon dafa xeet xeet yow waajal waajal kooku yéen a ngi lay fii si commune bi. Sëriñ Amsa dafa am sëriñ bu ko wax. maa ngi koy waxaat rek ragal naa ne ci ñi tax mu ne ko waxtee ko. ma gëm na ne sëriñ Touba lu ne bind na ko boo ko gisee boo ko gisul. yàlla daf koo wóor yi nekk mu gis ko. mu neex ko bët lool. te bari am bu tëb lool bala maa ñu ci li ma lay wax danaa ci joxe misaal rek. man ca lu dee daf koo bàyyil ca koso. ñu andi ko ñu andi xaalis bi wàññi ko ci kanamam mu tegal ay koppar ak suuf soo yëlee ñëw ndax am sew dañu la tegu sew lu mu ko andal sëriñ bi ne gas na gas na de. yéen a ko ah comme li ma ko moom Thierno mooy amul fu mu bëgg bu ko waxee des na dem na ci jëw yi. bii ñu ne wax ko jëw yi bii jëw yi ne suñu ci toppoon damaa def noonu jënd ko ndax dafa néew bu ñu ko doon sax moo egg fii Thierno loolu lay wax ne xëy na ko yëg ko ko rek ba xam lu muy wax. bi ñu essayé sëriñ fa xale yoon boobu mu raa seeti xale daal koy tasaare ba mu nekk mu daal di génne ci biir aw kay aw jax te tool yi ba mu ko dindi ci géej gi. dina daal di Thierno dana dana sëriñ rek du ko xam. dana fa ay nangam bëri bee nangam lay doon kii nangam lay doon buñ ko jaayee nangam lay doon ci xaalis dana tax toxal ay koppar ba ci suñu sax dama ko xooxal na xaalis ko. tey jii nag tool yi tool yi maam Thiam dañu ko jébbal ak la ca topp ci xaalis ak i suuf waxuma laa ak njabootam ak i seen tam ñeneen ak yeneen góor bi du jaay daal kon ma ñu ci li ma yaakaar ne sëñ am sa ci yow. sëñ Saalif yàlla Serigne Saliou bi yàlla na ko yàlla def. amiin sëñ Touba. papa yi ñun moo leen demal bu Cheikh Malick Diop. amiin sëñ Touba. waaye li tax ma ma tudd leen ñoom ñaar. tool bii ngay bay ñoo ci doonoon sa jëw li di sa lëkkal mooy yare ak jafe. ma joxe ci benn misaal ci collégion. Serigne Saliou nee na bi mu tàmbalee ne ci digg tëb léegi te léeg-léeg am du naqaree defam mu dem ba xaw a jamono ji naqari te dina defar lu ñu jafe. am na guddi goo xam ne dafa dem ba yëpp xalaat ne bu ma xëyee yéen ñëpp ndax gis naa ne daal dafa mel yombul te nit boo ko mën a defar daal moom loo koy doy nga am loolu fanaan mu tëdd mu guddi mu pour ko ci bagage rek gaal bi ñu yor parce que gis nañu suuf quoi suñu diggante yi ma jot a wax. علي لله تبارك وتعالى إقامة من يعلم الثالثة التي نتيجته القابلية يؤتي ذلك. loolu mooy mooy Masihul Xadim waroon naa ci sama borom mu ne ma yem ci sama loxo ngir ma defal leen ko jàngal leen bu ma ko doon saa ci nit dama naan la ñàkk a liir te mu def ci ñoom dara mu jur dara ñooñu waroon naa xamal leen ak jàngal leen man seen tubaab. suñ seer yi mu ne la dama gisee lii bi ma jaay tubaab xam ne maa ko tax a jóg ma xëy na tubaab jënd waa seen tubaab tàmbal nga loolu nag wax ko mu yem ci suñ seer yi rek dafa jàllale benn sa bàyyi suñu soxla yi ma xamante ne lii kon ala yi ci yàqu waaw sëñ Saliou bu rabaate la ko sëñ Souane bu rabaate la te ma gëm ne sëriñ bi mboolem ñi ñi ñi ko topp ñëpp ku ci ne am la ko topp te teewul ñu fekk leen sëpp ndegam ñi ko topp ngir àddina kese kese képp la defar ñoom la dimbale boo leen nag loo xam ne duñ tàggu moom ba ëllëg rawatina ku bokk ci moom tamit ak bëgg sama yi nee na dafa jékki-jékki wax mu ne li si waa bëgg rek xëy na jàng ak jàng bi ma gën a jëlee mu toog ci kanam gii ci la ko bànn jamono yi naqari lool mu jamono yi 39 40 nga xam ne boobu guerre bi déclaré ñu toog ba 3 heures ci bëccëg añ amul ci kër te mu ngi jàllale di yaay te loolu ko ci daal ñu def pexe di def pexe ba ñu ñàmbul mos te xalaatul lu ñu reer nee ci gamsaan bi mu toog ci jàng prière toujours jàng daal man day suma sañoon li ma jaayee rek seen tubaab moo ci soxla damay toog rek moo def tam nekkal ko ci alquran ak kuréel xam naa ne loolu la loolu waaye nii jamono ji nekk li ci taxe li ñu ko ci ñàkk dund man xamul mooy fi nga xalaatee loolu mel na gëm gis seen tubaab yi léegi sëñ bi ñëwee ne ko soxla ko toog nga sax ci sama kër sëñ Tuba moo wéy ni comme sëñ Tuba moo bàyyi leen ko defal defal defal sotti de defal li ñu mën a ma ne na nga xam ne Serigne Touba moo ne du fi jóg ñi amul ñi amul bëri diir mën nañu ko koy defe ne maa tene waaye ñu ngi fi dem tànn la ñàkk waa gis nga ko gis. danaa ci jox sàmm kat Serigne Issa Diallo bëri bi moom Serigne Touba dafa xool Serigne bi ba mu jub ci sa rajo am na Serigne Touba tam njëriñ bi dafa seetlu woon lépp pour ñu ñëwaat jàmm fépp lañ ko seet ñu toog foofu lañ wasee nga xam ne daanaka ak yu bëccëg sax day taw sama benn mën loolu yëpp kan laa gis daal di mu xam ne jël ba nga xam ne dafa ko laal wax sëñ Issa bi di naxante moom ne ko dox ko tuwaat yëpp loolu ne ci wér gi yaram seen bi dafa baax ku ci ne ku ci ne la ko war a dugg genn wàll ngay jot waxtaan bi ne ko damaa waroon ne bëggoon a mbàkke am na yeneen ci bëgg gi ñu bëgg ma tabaxal la koo xam ne da nga liggéey liggéey daa ma xaw a sedd dama naan koy toog di liggéey yooyu waaye sedd yi dafa dafa def yaram si loolu baax na naa la toog daa mis boo ko mu ñëw nag isa demal ci seen kër gi nga defal ma fa tabax boo xam bu ma pare dinaa ñëw yëngu ko gàncax si isa rek di ko defal bi tabax bi laa tax ma ba suñu ñëw quoi te suñ ci wàllu lu wax dana ko def ñu jekk jekk si isa toog këram fi ndàmb si mbaa ngi Tuubaa ñu ngi seen si mu soxla ko Il est à la xam ne dafa doon suñu njóob yi dama ko doon bëgg a jàjji rek fakkaanu ndax dama wax léegi ne xasida yi ñoo gën a julli ñoo gën a lépp man loo xam ne ko am na loolu ku ko xam it doo ko sañ a wax da nga jëm sa xol tere moom ndax ñeneen ñi foofu la ñu nañ leen bàyyi xel loolu laa doon bëgg a wax di ko yàq waaye xam naa nga ne seulement moom fu ne ma ne

ñi dañoo seetlu ñeeneen aas dañuy daan ñu yi yëngu seen facture. xëy na parce que ñu tuddoo aas. Ah. dana xamal ne aas mooy ñan mooy ña nga xam ne di yàlla si ñun loolu ñëpp ci àll dañuy liggéey kooku yëngu ndax da ngeen yàq aas mooy ñoom ñax ñi ci ñi téye aas jàpp ñoom ñoo ko jàpp ba si ñun mën a yëg di bokku ci te aas suñu borom ne la ci aas bu suñu borom bi ku doon gën a suñu rek ci aas la rek wala teg ko kono malaika yaahanno weeyama as omo jabba ñin suñu ɗum ndeyam yoon ɗum sëñ tubaab ne yooyu ne ñin dañuy jaaju bi ànd kon li doon war a jom xamu wér alquran moo gën a màgg lépp boo ko doon misaal da nga naan meew mu ratt bu ñu ratt ca nangu cere ñuy génn si ñor génn ca bëër génn ca dax lu ci dara dama yaa moo man nga koo naan du dara waaye nag boo naan ne tuubu ñor nga day gën a fas loolu li mooy mbootum mbootum alquran dañ sëñ bi seet pil ëllëg yu bu mu xasee lu ma ko jëriñoo te lu ci ndax ndax ndax ndax alquran yi fa fasul boobu la ban amal ko. mu foog nag lan ca mën a amal njëriñ ak sëriñ ba nga mënoo koo dégg mu xasee xoolal ma ko joxoon bés rek. جيبوا وسلم يعني أنا أقول الفرد بايا نحن بايا نحن أنت تمرين لنا يا تفاجئ سيتي ما نقول كم بقول لك أنا ولا بقول لك أنا بايا بقول لك أنا ولا كيف بقول لك أنا كسيه بقول لك بقول لك أنا ما عندي سبب برامج كذا this kind h a get more. loolu am fii fii la doon liggéey ak ak yooyu jot. ma ne wóor na ma ne barab bii Serigne Touba san san toll woon ko ba muy sant loolu sëñ Mourou Moussa sëñ Fane te ci moom ngeen kii maa ngi leen waxoon ndaxum barke ak dugub bi suuna booba de wóor na ma ne doomal taxaw ngay taxaw moo tax sëñ bi ñi nga xam ne ay wax sëñ Touba تمو كبالي سن دي وادو جدي يا مالك يوم نبي تاعي سير خدي نقدر نتيجي نيب باجي واي سن دي سي سان دو فين كايو لي رسيت عليك ابيو تا كون خامني نيتي انو بون جامي بغي سير دي دي سير جابو ادي دي سير دي دوخ ñi am na si yéen ñëpp dinañ gis kon nag wóor ne boo wootee lu mel nii ñu xëy na fii yàlla dara ci ngeen amu ci lu tudd yàlla di jëm ci yonent bi di jàng xasee seen tubaay yi malaaka yi wóor mu alal ko fi wóor mu wóor leen seen tubaay suñu biir. li koy daanee rek mooy suñu mor ante sëriñ dafa am lu ko sëriñ bi waxoon ak lu ko waxoon sëriñ sëriñ bi ku mu dara jaale mel ne dangaa bokk ak moom it danaa baaxee waaye kenn moom waxoon na mu génnee àddina mu jiw yow ñu bokk si ñoom ak sëriñ dama topp ko kon mu jit yow yow ëllëg doo am sa nit ci sa bopp ba wax ne ba lee ba lee xale bari si moom ne ko ahmadu dafa laal ne nag maa la jur mu noor bi ma am ndax loo mën a mel maa la jur te nekk baax ko ne sëriñ comme njëriñ bii am bis nag fan sekk ci seen basiru ak seen loolu seen taal ba ak seen diine ak seen xam-xam ba sof-sof bu baax romb ko xam-xam baax seen la yaa bu dina xoolal ba mu ko ne Mbacke moom lañ sëriñ yàlla moo xam ne noonu la ñu naan bi dinañ baaxul ak yow xam naa am na doom waaye